à l'Assemblée nationale. les réformettes ou les complots parce que lu ñuy wax réforme c'est un consensus. qui est mhm. tiré. oui mais c'est c'est dialogue non xam nga moom la gars def le dialogue est informel d'un point de vue institutionnel la vraie institution ki sert de dialogue c'est l'Assemblée nationale. c'est pourquoi ñuy naan toujours assemblée est le lieu par excellence. Mhm. du débat public foofu la alors fii. lu lu gars di wax dialogue. Mhm. il faut nga wax kan ak kan ñoo dialogué parce que dans le dialogue. dafa am interactivité sa yaa ngi wax maa ngi wax or ndogal moo am fa les produits moyens après avoir fait en cachette un certain nombre de réunions cest à dafa am fu lu gars yi d'accord ba pare. soo ko def ci dialogue bi. pour ndax nit ñi ñu ne dialogue la moo tax dialogue bi xaw ma trois jours rek jeex na rapidement assemblée et cetera lu gars yi réglé yëpp et chaque jour ci passe mu dévoilé lépp loo xam ne ci complot lu jóge donc bu jëlee complot di koy teg comme dialogue yaa ngi ennoblir dina complice. de la malhonnêteté parce que complot c'est pour les gens malhonnêtes. Mhm. le dialogue c'est pour les gens sincères nga xam ne duñu la jëw ñu ngi ni jàkkaarloog yow. wax lu ñu xalaat jëlee waaw. mais ñoo xam ne dañuy nëbbatu ba fële et cetera tout c'est des hypocrites.